nit di interdit bind saafara di ko sangoo wala nit ku dee ñu koy wàccee kaamil dama yaakaar ne dañoo gisul aaya bi ndax yàlla dafa wax ni wanu nazilu min alquraan ñun yàlla ñoo wàccee ci alquraan kon waxul ne alquraan bi yëpp pour loolu la min alquraan xam nga min mooy ñun ñëpp buñ dajale woon fii nga seet si kenn kooku mooy min yàlla nee wanu nazilu ñun yàlla ñoo wàccee min alquraan ci biir alquraan ay ayaat ak ay sura yoo xam ne maa huwa shifaun dañ koo def mu nekk saafaral kon nit am na loo xam ne dina koy metti ñu ne ko boo seetee tey ku mel ni xaaj Mansour mu bind la benn aaya ne la lii ne la lii mën nga koo sangoo boo ko sangoo sa saafara dina dina daj maa huwa shifaun ndax lee tegtalum loolu sallallahu alayhi wa sallam tolloon na ay jamono waa Màkka dañ koo njabaroon biñ ko njabaree yàlla dafa wàccee alquran ne neko dee ko jàng ndax njabar bi mën a dañ ci sa yaram mooy qul a'udhu bi falaq ak qul a'udhu bi naas moo to julit heure bu amee lu koy metti rek ci alquran am na loo xam ne suñ ko ko bindalee yàlla mën na ko saafara gis nga xale bu fekkente ni xale boo xam ne day day génnee ay bëñ nga xam ne jamono jooju yaram bi day tàng mag ñi wax na ni soo ko bindeelee wa anzalna min al muxsiraati maa an sajjaajan li nuxrija bi xabban wa nabaatan nga bind ko juróom-ñaari yoon nga boole ko ak lem jox ko ko mu naan ko yàlla mën na dogal dina feeñal ay bëñam ba bëñam yépp mat te yaramam du tàng te du si am benn feebar man bëri na koo xam ne bu ñëwee ci man di ma jàmbat loolu loolu rek laa koy bindal te xale bi yaram bi dootul tàngati te ay bëñam dina jën bëri na ci alquran loo xam ne yàlla daf koo wàccee pour mu nekk saafara boo xam ne ñun dañ koy saafaro ndax wax naa la yonent bi biñ ko njabaree wax naa la yonent bi biñ ko njabaree yàlla dafa wàcce alquran ne ko lii doo ko jàng njabar bi dina dañ ci sa yaram kon wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahmatun yàlla al def na alquran